jërë ngeen jëf ami internet yu 24 actu yi safoo xibaar yi 24 actu yi bàkk ba jibatina la ñuy waxtaane mooy ginnaaw bi ñu ko libéré moom Abdou Karim Gueye alliance Karim Xurum Xaax démb ci alxames ji doon na amee dajeem bu njëkk ak taskatu xibaar yi daal na yëkkati ay kàddu sant jëmee ko ci askanu Sénégal dikkaat si anam bi ñu ko jàppee ak melokaan bi autorité sénégalaise yi amee ci la daal di xamle moom Abdou Karim Gueye dafa respecté lool xamante ni moo justice mer rek la doon waxee nangu na ko te baalu tamit àq waaye du yoon fii ci Sénégal ñuy arrêté benn imam bu am lu toll si juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñett ngir lenn rek mooy da doon julli ci la daal di wax ne tamit gisante na ak ki nga xamante ni moo di Assane Diouf daal di koy conseiller ngir mu bàyyi saaga yi nga xamante ni mi ngi koy def tey xeex xeexu noobul ba tey si janoo boobule moom Abdou Karim Gueye nee na sénégalais yi dañoo war a jukk ngir jàppale ki nga xamante ni moo di Assane Diouf ndax kii di njiitum réewum Sénégal di Macky Sall daf ko yóbbu ci chambre bi nga xamante ni dañ fay def ñi nga xamante ni ñoom lañuy accusé de terroriste te nee na loolu du yoon ndax ki nga xamante ni moo di Moustapha Cissé Lo def na fi lu gën a raw li nga xamante ni moo di saagay Assane Diouf yooyu le buñ sukkandikoo rek ci ëtt yëglekaay boobu le di Sénégal ñu daal di wax ci leneen mu nekk phénomène boo xamante ni tàmm nañ ko di gis ak li nga xamante ni moo di commerçant yi ci bu feet jubsee ñu gis na nag ak yokkute gu metti moo daal di am ci prix yi leen ndaxte bu njëkk mu ngi doon jar a ah, junni ak juróomi téeméer jamono ji nag njëgg a yokku na ba ña nga koy jaaye lu toll ci ak ñaari junni kon nag kilo bi daf lay daal di dikkee li nga xamante ne nii ah moo di téeméeri dërëm buñ sukkandikoo rek ci yëglekaay boobule ah, di quotidien mi nga xam ne ne ñaari ayu bés rek moo daal di des ah, suñu diggante ak tabaski gi waaye commerçant nag njàqare loolu la ñu daal di amee jamono ji ndax gisuñu benn yoon ak clients yi di ñëw di jënd ndax prix bi yokk gi xamante ni yokk ko ko li dul jàngoro ji lëmbe mim réew àddi coronavirus. ñu daal di wax ci leneen ki nga xamante ni moo di Kumba Gawla Seck dafa daal di déposer benn plainte contre X li ko waral rek dañoo daal di pirater li nga xamante ni moo di à chaîne YouTube am daal di supprimer li nga xamante ni moo di vidéo ya depuis samedi 11 juillet bii ñu nekk moom Kumba Gawla Seck naka jàqare loolu la def ndax xamul benn yoon ki def mi la mbir ba tax ci la daal di déposer loolee nga xamante ni moom la ñuy tuppee ab ak contre X. ñu daal di wax ci leneen njàngalekatu alxuraan ay atam toll si ñeent fukki at ak juróom moom lañu ñu loxo ngir doon jéem a sàkku benn taalibeem bu am lu toll si fukki at ak ñaar buñ sukkandikoo rek ci source a yëf yi mi ngi am si guddi dimanche jàpp altine bi ñu génn ca quartier Daaru Salaam extension de Mbacké defeere nañ ko nag ndiki talaata ca prison bu Njaareem moom jàngalekat bi def yëf yi nag lam xamal enquêteurs yi mooy dafa naan whisky ba xamatul fu nekk ba looloo tax mënu leen a wax benn yoon la nga xamante ni jëf na ko ca guddi googule jëme ko ci taalibeem boobulee ñu daal di koy jeexaleek benn jëye bu metti bu am sa hôpital principal benn dal batiment bu nekk en chantier moo daal di daanu daal di rey benn ouvrier daal di fay nag def benn blessé buñ sukkandikoo rek ci directeur hôpital bi di docteur Mame Thierno Dieng yëf yi mi ngi am démb ci suba waaye jël nañ lépp luy disposition ngir aviser ko autorité yi ba tey ci ay kàddoom blessé boobu tamit mi ngi am tan bu baax a baax ba ñibbi na li nga xamante ni moo di këram lii rek moo fi gënoon a sa ami internet yi dig daje lay doon ba ëllëg ak jàmm